syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux section bu affilié à FGTS Nous nga xam le feu Sidiyé Ndiaye moo ko yoroon te le secrétaire général Moussa Sissoko syndicat bi ñu ngi ko taxawal liggéey bi day continuer parce que nous duñ gan ci mbir mi yoroon un syndicat une ci responsabilité, responsabilités un ci nombre de temps qui au niveau communal au niveau régional au niveau bureau confédéral donc nous du lu bees depuis 88 ba léegi ñu ngi nekk si biir seen mouvement syndical kon falu bi nekk lu bees ñun continuité la te dama si nekk aussi pour accompagner xale yi nga xam ne ñu ngi si biir loolu moo tax mu jiitu ko mais tey jii nii xale yi bu ñoree damay retiré bàyyi xale yi jébbal leen kii ma accompagner leen. man personnellement je ne crois pas yàlla rek moo xam mais je ne crois pas que dina am problème boobu noonu. parce que bu ñu naan xaritu sëriñ boobu la. mais xaritoog sa maire bi nga xam ne moo lay jox li nga bëgg. parce que si agent municipal nekk Kaolack. jubóog sa sa sa patron moo gën.